Gambie nekk na tam benn dëkk boo xamante ne tamit bu ñu fi ñëwee dinañu profité siyaara mbooreem barab yoo xam ne suñ maam ju tedd googu tegoon na fa tànk mooy al Cheikh Omar Foutiou Bun Sayid al Foutiou su mel ni place bu mel ni Pakaaw Bakaaw ak place bu mel ni Gunjur yooyu am pare nañ fa maanaam pour dem fa pour def suñuy ziyaara naka noonu tamit mboolem kilifa ba ñu ngi fi nga nekk soppee kunkaane tamit maanaam dina fexe la tout incha allah jëflante ak yow avant ñuy dellu réew moom di Sénégal. waxoon nga si si gannaaw ne bi nga ñëwee woon daaw Gunjur hmm. doxoon nga ci kaw géej gi hmm. am na wala amul parce que maa ngi doon seetaan sa benn émission julli naa sax si ndox mi si kaw du ndox ah, bi lan ñan ñooy sa la ñan ñooy sa seede daa am ñu la gisoon taalibi Cheikh Omar Fouti ak jinne Cheikh Omar Fouti gis nañ la waaw ah. amul ci benn vidéo boo xam ne génn na non mënuñ ko jël parce que ñoom da eh, sa nañoo ragal ñi ñoom fekk ma si ndox mi waaye am na yow def nga ko déggoo li ma la julli naa si ndox mi waaw mbokk yi ñoo ko déggandoo yéen mi ma doon laajte na naa ko laajte Kounkandé leeral na far na boobu tamit. julli naa wa ñaari rakk julli na. ca géeji gunjur bi ñaari rakka si kaw géej bi waaye daal nit ñi ñemewuñ toon pour jël évidence yi. waaw maanaam aussi damaa salmal muy taw ñëpp daw ba am na. ñëpp daw ba taw na waaw. bés boobu dafa taw. billaahi wa rabbul kaaba. barke yonent yàlla Muhammad. maanaam waaw fu mu nekk nii taw taw bu métti. kon ka yaa ngi Gambie fu mu toll nii. na pare nga pour defaat loolu. di nga julliwaat ci kaw géej gi. waaw mais su may dem dama tàggoo de. doo tàggoo da war ngaa mun a parce que xam nga lu xew mooy. <laughs> coow bi li day bëri. ñëppaa ngi naan defu ko munu ko parce que gisuñ évidence xaw ma évidence ngeen ko dee wax xaw ma. leerul nit ñi. maanaam waaw maanaam ñun luñ bugg a daal pour mu leer ñu daal. mooy caméraman yi ñëw ñu gis ku Kandeh julli ci kaw géej gi ñun loolu lañ bugg a dañ bugg mu leer ñëpp nga gis coow li jeex. Mhm. parce que coow li bari na torop mhm. ñi di naan amut amut amut yow foog nga ne pare nga pour def loolu ah, man pare naa lépp soxna si waa léegi fu mu nekk nii xam nga kañ laa pare ah bi ma toogee ñu jox ma ndigal ñu ne ma yow kunkande kan moo la jox ndigal ndigal la boo xam ne maanaam bu jugee kóora fan si suñ borom yàlla la mooy maye di mu waaw mu jox la ndigal mu ne la mu ne ma hmm. mboolem xam-xam boo soxla. waaw. loo xam ne maa koy maye man. waaw man yàlla may maye. Mhm. yuutihi man yashaaw la man maay joxe. amul benn doomu aadama bu ne moo joxe ku ko waxoo dëgg yàlla moo joxe. pourtant yàlla jox na ma xam-xam bi ne ma jox nañ ko loo bëgg a def def waaye nag si ndigal kan maanaam si ndigal fi nga xam ne man falaa laa branché woo mooy kan mooy Cheikh mooy sama sëriñ am naa si ndigal dem naa ba Fass jaarale jamono jii lu ma bëgg def dama koy def. loo bëgg a def da nga ko def bëgg a def danaa ko def si ay xeetu karama pour jàmmal doomu aadama yi. waaw ñun luñ bëgg a. parce que xam la moo waral loolu. Mm. parce que cool yi dafa bari. torop ku jug taxaw xamoo kunkande xamoo fu ma sokkee ko xamoo ni ma juddoo. xamoo mm. nangam nangam ngay jug rek di fenn ne xam naa ko. xam naa ko waaw. ngeen baal ma si kàddu bi. Mm. mais dafa bari wax ji moo bari. wax jee bari loolu looloo tax fu ma dem. danaa def loo xam ne ñoom. waaw. ñu topp ñu gëm yëpp. waaw ku si ñëw toog a mën doo ko def. doo te fekk mënuloo ko sax léegi ñun luñ bëgg am def ko mooy de moo taxit ma ne la ndax yow pare nga booy démarre pour julliwaat ci kaw géej bi ndax pare nga pour caméraman yi ñu invite téléviseurs yi nekk Gambie yépp ñëw taxaw mu leer ñëpp ne Kukandeh li mooy wax ni lu leer la te mën na koo def def na ko. bu dee pare nga sa caméra yu toj explose kañ indi ko. parce que xam naa ne dee caméra day toj. maa la wax lu koy toj. <laughs> ah ñëwal rek.